bëgguma euh, sax Simon Ndiaye avocat am leeral na ko nee nañu dañ ko présenté benn email ci email bi ñu bind ne Massata dafa jox ay nit dafa ger ay nit pour ñu noppi mu ne leen su fekkee ne Massata li ñuy wax ni dëgg la ne moom moo ko def yëfu wëyu la leen nañu loolu sama papa wax euh, avocat am leeral na ko mais gëwuma ne sama papa dana ma traité de wëyu ndax mooy moo ma embauché <laughs> pour ma liggéey ak pour moom donc euh, mënul embauché wuyu te xam na ma xam na ma duma ma ca sàggane man taalibi murit ah ak ah, xan la du duma foyee ay mbiru ger ay mbiru caaxaan du ma sàcc duma ma fen du ma liggéey laa gëm bu bari dama dama nekk nit koo xam ne dama mës dëggu ci li may def euh, du ma du ma fontu kenn yebu ma ci li may liggéey monde bi ñëpp xam nañu ma dëkk yi ma mës a dem yëpp su foo mën naa fa dellu ah aw ma <laughs> moo am sens ba pare dama dox diggante ma kilifa yu bari muy Japon muy Qatar muy Russie muy Inde muy fu ma mën di dem ci àdduna su ma xamee kilifa wala xam euh, PDG Samsung dem naa ba toogoo moom xam ko ne sama bàpp kaa ñu ànd seeti ko ndax euh, Samsung mën nañu amal njëriñ mu ngi nii donc man dama mës nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla sama rapport ak sama papa moom rapport professionnel am na mais rapport tamit euh, vraiment de respect moo mës a am ak man donc ba ma déggee dama naan ah, xam naa ne presse bi Euh, dafa am ñu leen di fay pour ñu xam ba jéem a indi jaxasoo si sama diggante ak sama papa alors que loolu mënta nekk. loolu mënta nekk man moom mooy sama kilifa. Hmm. ci saayir waaye tamit ci liggéey mooy sama kilifa moom ma <laughs> moom ma jox instruction ne ma defal lii ma def li ngay ngay liggéey donc musuma def loo xam ne yëgu musuma dox ci loo xam ne euh, yëgu d' accord wax nga ko sa biir wax macha allah moom euh, njaboot na léegi nag say doomu bàyyeek say mbokk ak yooyu. yow Pape Massata Diack yow yaa doon liggéey góor gi tey lii nii yow wàcc